ETDR Events vous présente le 14 janvier fils de Bala Lacrosse drapeau Ousmane Sakal maire de Sakal ñàkk jariñu Thiatou drapeau Ahmadou Bamba directeur général de l'artisanat deux grandes affiches une même journée ETDR Events le 14 janvier sponsor officiel établissement Touba Darou Rahma Junourola Touba Darou Salam Karo Tampico Huile Global Textile Kër Arab Business jërë ngeen jëf mbokk internet yi nuyu nañ leen bu baax a baax di leen ziare am mbégte ak contentement ñëw fii CNG fekk fi ki nga xamante ne moom mooy Zambala gannaaw bi nga xamante ne CNG jëloon na ay daan teg ko ci kawam ci mu waroon a bëre digganteem ak Blindé yàlla dogal na daan yooyu nag CNG teggi na ko tey ñu ci bu baax a baax a baax di ci remercier waa CNG di ko sàkku samit ci ñoom ci ki nga xamante ne moom moo nekkoon adversaire am ah di Blindé ñu mel ñoom ñëpp njabootu Bira Sène la njabootu làmb lañ maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare Zambala bàyyi la nga nuyu mbokk internet bi. waaw Lamine ñu ngi lay fay di wax gannaaw ba ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur ñoo ngi sant waa Mbaaw yëpp di sant axlu làmb yëpp waaw di wax ne gis naa taxawaay bi quoi depuis ma nekk ci sanction ku nekk waaw sama mbokk mbëri xam nga ku nekk génn di ma di ma ñaanal intervention axlu làmb yëpp ñoom Père Bégaay Fadam xam nga et tout ça maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. waa di leen remercier si act bi ñu def waaw mënoon na leen si bañ a fekk mm-hmm. waaw dama leen di sant bu baax a baax di ñaan yàlla defal leen jàmm bu baax a baax a baax a mm-hmm. sanction bi bu mu daanoo sa kaw ñu ne la da nga toog wala deux ans yoo xamante ni doo ko bëree moment yooyu nan nga ko dundee yow mbër mi waaw métti woon na ma trop waaw parce que boo xoolee xam nga mbër ñu jox la avance Babacar kii Lamine ñu jox mbër avance yàgg sa moroom mbër ngeen di préparé wu ñu dem ba si biir préparation bi am beneen lu si am loo xamante ni mënuñoo leeral lépp parce que loolu boo xoolee mu ngi door am ci làmb ji làmb Sénégal li mu fiy door am ñu jox mbër avance yaag sa morom adversaire yéen ñaar ñëpp ngeen ñëw ba si jouru combat bi yéen ñaar ñëpp ñëwoo leen kon dañu waroon xool lan moo waral loolu mais bref passé na quoi jarul ñu si ñëwaat comprendre nga waaw tegoon nañ ñu amaan xam nga fay nañu amaan bi CNG teggi na daanu ñuy tegoon amaan beeg yëpp sanction beeg teggi nañ ko dañuy sant yàlla bu baax di si sant monsieur le maire Abdou Karim Sall bu baax a baax a baax. kon avance bi nga xamante yoroo leen nga ko association manager yi leen ko dellu. waaw moom laa war tey waaw loolu laa war andi tey looloo waral xama bu yàgg mais dañ ne ma amende tant que fayoo ko doo jot sa licence pour mën a compétir quoi. comprendre nga laa ñëwoon di ko andi tey di gis. amende boobu mu ngi tolloon ci ñaata. waa amende bi mu ngi tolloon ci. avance bi boobu. waaw non si 650 000 lañ ma joxoon sax. waaw te yàlla waaw avant 650 mille moom laa ñëwoon doon ko te yàlla xam na ne Lamine ay millions laay def sama ngéem man moom laay préparé làmb jooju def naa si ay millions yu bëree bëree bëree bëri billaahi wallaahi wa taala ay millions laa si def parce damay wàcc yow xam nga ne làmb man damay wàcc waaw làmb du ma si du ma si caaxaan quoi parce mbaru gox laa mbaaw ñëw topp sama ginnaaw moo tax nga nga nga nga nangu fay parce que gisoon nañ nga xawoon affaire yi metti la nga ni jaral na ma bàyyi bëri genre communication yooyu noonu lan moo indiwaat sa xel ba nga ñëw def li nga la woon si waaw damaa nekk yaakaaru làmb mbaaw gépp yaakaar ci man comprendre nga ne ma avance boo ko fayulee ñun nañ ko fay nga delluwaat say activité comprendre nga léegi bi ñu jàllalee message bi monsieur le maire Abdou Karim Sall jot si benn fan la ko jot xëy na ma ñëw nga jël sa xaalis dem fay avance comprendre nga ah. di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a baax a baax li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal di ko sant bu baax a baax a baax monsieur le maire Abdou Karim allah ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci taxawaay bi di ko wax nag mu gën a jàpp ci Zambala jàpp ci mburu mbaa bi ndax tamit àll bu ne la fay ñuul moo fa dim ñag combat boobu bëgg nga beneen promoteur tëggaat ko wala instant bi beneen combat ngay xool. combat boobu pare naa ci Lamine ma pare ci mooy combat boobu ma ngay jël diire bu gàtt la woon diire ma jël combat boobu mais xam nga mënoo jege si mënoo mënoo mënoo tegle trois victoires yoo xamante ni ñetti mbër yoo xamante ni ku leen daan waroo xool fii yëpp damaa daan Serigne Ndiaye numéro 2 daan Mamadou Ndiaye bëreeg booy fay daan ko comprendre yi ñoo tëggoon làmb association des managers ñu am na ñu waxee ñun ay suñu ay kilifa lañ looloo waraloon ñu jël combat boobu noonu si deux mois yooyu noonu ñu ne nañ ko faxas dem mais làmb jooju nañ ko boo xoolee huit mois te gis si jot am nii nii nii nii si xam nga ñu ñàkk ci xaalis bu bëri mais dañ koy sant yàlla bu baax. mais benn promoteur su ko bëggee kay da nga mujj ragal beneen ci diggante. non non man du ma ragal man doomu lébu laa du ma ragal man mbaaw ah, <laughs> na 15 combats la am Thérèse yàlla nañ ko yàlla na ko yàlla defal jàmm ñu ngay ñaanal tamit intervention quoi CNG bi daan yi xam ne teg nañ ko si kawam ñu teggil ko ko parce que ndawul làmb la léegi yow yan adversaire nga gis comme bëggatoo combat boobu yan adversaire nga gis ne war nga mën a bëri ñoom ci lu gaaw Lamine sama combat ak Forza billaahi wallaahi làmb daaxu ko billaahi sama combat ak Forza daaxu ko dañoo war a bëri maag moom sama combat ak Gora Sock làmb daaxu ko sama combat ak Zarko làmb daaxu ko yi sama combat ak Aliou Seye numéro 2 lamba ko bëgguma lu nooy bëgguma bëreek mag. ku la attan nga bëgg. barki Serigne Saliou bëgguma bëreek mag dama bëgg a wane sama bopp parce que damaa toll si wane sama bopp xam nga sama catégorie xam nga ñi ma ñi ma ñi ma génération dool xam nga ñi ma débutant dool mbër moo mënul daan si lamba ji amul. maa xam loolu keroog kaw lax nga ma yéem kay. yàlla xam na ko mbër moo mënul daan si lamba ji amul. maa la ko wax. ku fi takk ngemb fii nii mën naa laa daan. wallaahi kan déggal kii naan Franc. waaw Franc ah, day sa morom Franc di ci kii. Franc day morom kii. <laughs> ñooñu ñëpp ñoo jógandoo ñoom ba patandoo. waxuma loolu parce que sa coach da lay dugal ci Franc. Franc Franc Alioune Seye Forza Gora Sock ñoom ñëpp. Ah, eh. Lamine du doole du doole du du du mbooloo du dara luñ ma ëpp. dégg nga la wax. Forza Gora Sock Alioune Seye ku pare ñëwal. sa coach su nee na Franc mooy làmb ji mais Franc yàlla xam na ne nañ ñëw amul luñ ma ëpp si làmb. Hmm. maa leen gën a saf làmb fuuf maa leen dàq ëpp ñu ma mbooloo amul kenn ku ma sepp mbooloo ñu ma leen limal noonu ñëpp maa ëpp mbooloo fop fuuf. ana Boy Niang. Boy Niang mu ngi fi mu ngi si jàmm bu baax. daa mel ni ñu ngi def lépp. waaw di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko ndam lu sedd guy waaw ndax dina yomb ak Modou. non dañuy ñaanal Boy Niang rek yàlla defal ko jàmm. mooy pare na Boy Niang pare na. waaw ñun ñooy toujours pare si pare lañ dëkk ñun bu ñu amee combat bu ñu amul combat yëpp dañuy pare. waaw xaaral xaaral waaw loolu mhm. combat wax na dëgg. wax na dëgg wax na dëgg loolu <laughs> wax la looloo làmb ji nag na dëgg. Eumeu Sène junior waaw man ku pare ku pare pour bëreeg man baax na fu mu toll nii parce que war a bëre. parce que dama am ay problème fa ma dëkk damay génn booy di ma kar bëgg xeex ak man si ñàkk bëri gi ma ñàkk bëri yaakaar ne man la bëri rek laa bëgg fu mu toll nii te bëgguma combat bu yomb bëgguma combat wax ne dañ naan kii zam bu ko jàppee zam mooy favori affaire yooyu noonu nañ jël gars jox leen favori sama kaw ma ñëw wane sama bopp. boo ñaaree keroog jël naa ko nee na yéen yow yow ak ak ak ordinateur ak euh, keneen ki. Kalmandour Kalmandour yéen a gën a xotteeku ñoom Franc. waaw ñu ñëw gën a xotteeku gars yi foofu ñun lu ñu def si làmb ak li ñu bëri gars yi bëriwuñu ko Lamine yow xam nga loolu bu baax a baax a baax man waxuma la sa ordinateur ordinateur waxuma la ko de ordinateur xam nga moo jaaxal ñëpp mu toll nii mais dama ne la man li ma bëri li ma def si làmb gars yi defuñu ko comprendre nga ñu ñoo gën a xotteeku gars yi fop ñoo leen dàq bëri fuuf. waa parcelle yi. ñoo leen dàq bëri fuuf gën leen a xotteeku fop. mais est-ce que boo ñëwee dàq bëri muul yow ñaa moom dama naan leen la ma daan wax si moom laay wax rek balaa gars yi di ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mu jël roi des arènes te yàggatul dara incha allah dañ koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm ba le premier incha allah mu daan Modou Lo jëlee bu rëy. ci kontaan ci yow. jaajëf Lamine. ETDR Events vous présente le 14 janvier fils de Bala Lacrosse drapeau Ousmane Sakal Dieng maire de Sakal ñàkk jariñu Thiatou Yoff drapeau Ahmadou Bamba Sarr directeur général de l'artisanat deux grandes affiches une même journée Events le 14 janvier sponsor officiel établissement Touba Darou Rahmah Junou Rola Touba Darou Salam Karo Tampico Global Textile Kër Arab Business